salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna salaamaaleykum mbokki yeewoo ci dëkk bu sell bi di Touba ku ne xam ne ñu ngi fii ci Touba euh, Daarul Marnaan waaye nag ñu ànd ak yéen ci seen jotaay bi ñu dippee euh, yoonu màggal gi yoonu màggal gi nag nekk jotaay boo xamante ni dina am solo lool waaye tamit dina yaatu lool macha allah euh, dinañ topp kër yi nga xamante ni ku tedd gi Sëriñ Touba Xaadimu Rasul sancoon na ko wala boog sax sancul woon na ko ñu dugg fa def fa ay gëstu yu yaatoo yaatu lépp rek ngir bëggal leen waaye lépp rek ngir waajalee ko li nga xam ne moom mooy màggal Touba nga xam ne moom la ñu dëdmal

topp dem ci maam Thierno Birahim borom Daaru Moxti ak histoire yu yaatu yi nga xamante ni jotoon na fi am ndax fii ci Daaru Manaan fi la Bursin Kumba Ndofeen Diouf ñëwoon doon seede seede lu am solo loolu macha allah waaye tamit fi la mbaaxaan ñëwoon doon def ay gëstu waaye tamit dinañ ko yaatal bu baax a baax ci yéen ñi nga xam ne yéen ñuy topp ci site bi di 24 actu ñi ngi fii ci kër Serigne Touba gi moom ngeen di jàkkaarloo nii dinañ dugg ànd ak suñu waajur mu gën ñoo indil ay yaatal gën ñoo indil tamit ay leeral ci li nga xamante ni lëntoon nañu ci Daaru Manaan ngir ñu leeral ko damaa toog ñu daal di dugg ci biir daal di waxtaan ak suñu waajur yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir ñoom ñi nga xam ne xam nañ lu bëree bëri ci biir daaru ma naan ngir ñu defal leen ci ab yaatu daaw da topp ma ñu dem ataytani ya rabbi min ladunka sikkan hakiman faditu anka baktali ya rabbi fi ubi wa xayra wajudta bil maarufi ملكتني بكوني jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy topp ci site internet bi di 24 actu yi comme ni ñu leen ko waxee woon sànq rek ci ndorteel yi yéen a ngi fii ci euh, Touba Daaru Manaan ci kër euh, sànq rek euh, tey nag ñu jàkkaarloo ak ki nga xamante ni mooy Baye Mbaye Diouf di kenn ci mag ñi nga xamante ni xam nañ histoire bu yàgg ci biir Daaru Manaan naan a ngi seen jotaay bi ñu dippee yoonu màggal gi comme ni ñu leen ko waxee woon sànq rek yoonu màggal gi nag dañ leen ci yaatalal lu bëree bëri laataa ñuy dugg ci waxtaan bi ñu bàyyi suñu waajur mu nuyoo Baye Mbaye Diouf Baye Mbaye nuyoo ak ñi lay topp ci site internet bii di 24 actu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi asbillahi mina sitaan rajim bismillahi rahmaani rahim barke xaadim rasul ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant bu baax ci taxawaay yi ndax yéen dangeen ngeen nekk rajo boo xam ne sëñ bi ak mbirum sëñ bi rek moo leen ñor fu ñu leen fekk ci loolu ngeen di dox ci ngeen di wax loolu nag moo tax ku ngeen laaj ci mbirum sëñ bi dana ci sawar a wax ndax lim leen ñor ngeen def ko muy seen lépp. jërëjëf Baye mbay Diouf ci nuyoo bu am solo boobu macha allah waxoon naa ko sànq ñi ngi fii ci kër euh, ci euh, daaru Manaan euh, di bokk ci kër yi nga xamante ne mën nañ ku tedd Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul sancoon na ko wala sancul woon na ko Baye Mbaye ndax mën nañoo xam daaru Manaan gi ñu nekk ci ban année lañ ko sanc ñu ngi leen di nuyu ci turu Sëriñ Mbàkke mi nga xam ne mooy borom daaru Manaan tey di ko wax Sëriñ leen nuyu ci turam moonu sant itam ñu sànni ci ay kàddu kon li ñuy wax ci ndigalam lañ koy wax Daaru Manaan bu ñuy wax ban at lañ koy sanc dañ naan mille neuf cent lañ ko sañc boobu sëriñ bi ma nga Gabon maam Cheikh Anta wala sëñ Modou Lamine Dagana ku ci demoon fekk ko foofa mu yepple jox ko leetar ak i màndarga booba borom daaru mi ngi fi ñuy wax guy ngóora guy ngóora boo ko doon xool tey boo taxawee héliport bi jublu Saalum ay deux wala un kilomètre nangam nga ak guy ngóora foofu la guy ngóora tolloon booba foofa la maam Cerno nekk ak njabootu sëñ tubaa gi ndax kenn réerewut ne sëriñ sëriñ bi bi muy jógee Mbàkke Bari di dem ci géej gi borom daaru la batale njaboot gi xamal ko nekk boo fi mënee toog nga toog fi néeg ma ba ma ñëw su fekkee mënoo fee toog nag nga dem ci réew ma toog fa néeg ma ba ma ñëw tolof tolof yam fa jànkoonteel ba tax mu jóge fa wax nañ ko waxati ko daanaka jël baamu bi mu fa jógee ñëw ci réew mi itam ah, noonu sëriñ bi demee woon ak niñ ko fi jëlee bor bàyyi borom dëru ak njaboot gi tax na ba ku mu bëgg a nekk fi yow doo ko nangu ndax dañoo ragaloon ne ku jege borom dëru mbaa nga séq ak moom dara tubaab bi dañu la attaqué loolu moo waraloon metit bi ba dañu ko jox ne ko demal sënc fee ci gannaaw dëkk ba foofa la sënc noog njaboot gi muy barab boo xam ne nag sax am na fay tolof tolof ndax barab la boo xam ne ñii ñi nee ñu ak mbay dee lañ ko tuddee woon ñii ne yoonu rab la nangam nangam waaye barab bu doy waar sëñ Mamadu daal di foofa la wàcceeb liggéey ñeel na ci njaboot gi ñu bari sax wàcc nañ foofu liggéey ba tax na mu doonoon diggante bu metti te boroom dooru mënta am menn pexe te njaboot gi xawoon nañoo takk booba lool ndax waa kër gi ak lenn ci donga yi te xam ngeen ne boo boroom dooru gën jaa bari trente mbaa trente et un lay am fukki fanweeri at mbaa fanweeri ak benn boobu foofu lay toll boobu borom bër foofu lay toll. macha allah Baye xam naa doguma la sax waaye nag ñu bëgg nga gën ñoo yaatal ci sanc bi nga xamante ni sanc nañ ko Daaru Marnaan kan moo sanc Daaru Marnaan noonu ma la ko waxee bu mag bi moo yónnee ca Gabon wax ko ne ko nga sanc ab dëkk tuddee ko Daaru Marnaan wax nañu ne bi sëñ mag bi sañcee Touba 1888 sëñ bu soobe bokk di nijaay ci sëriñ bi dëkk Mbàkke xewar da daan ñëw di fekk sëriñ Touba Touba bu ko sëñ bi gungee am na genn guy gu ne fii fii la ñuy tàggoo bu ko sëñ bi gungee ba ci guy gi sëñ bi wañu ko dem Touba mu jàll tuddee guy gi guy tàggoo. kon mooy guy nga xamante ni booy dugg si ci biir kër gi moom ngay romb. moo ma ngi ca gannaaw fële mi ngi ci gannaaw penc mi googa néewut fii du gii wax nañ ne bi mu ko joxee leetar ak i màndarga wax ko ne ko dëkk bi ma bëgg nga sanc ko dangay dem ba ci guy tàggoo nga tàmbulee ca dàtt guy ga natt nàngam ci buum gii ma la jox boo nattee nangam def fa jàkka tàmbulee waat ci jàkka ji jëm soow natt nangam ci buum gi def fa kër sañc ko tudde ko daaru manaan nit ma fa baa ñëw jàkka ji mooy jàkka ji kër ga mooy fii nu toog néeg bii mooy bayti waaw macha allah Baye mu nekk lu ama am solo Baye Mbaye Daaru Manaan ñu dégg fa ay histoire bu yaatu lu mel ni histoire histoire Buur Siin Buur Siin ku mën Ndofeen euh, ndax mën nañoo dikkaat ci histoire boobu ak nan la demee woon. Buur Siin dañoo wax na li waral mbir ma sëñ bu mag bi bu muy jógee Gabon di ñëw booba tubaab bi dañoo ñàkk pexe rek waaye am na ñooñ sax d'accord ñu woon ci ñëw gi. bi mu sañ waxee borom daaru nag mu sañ ci dëkk bi ba sañc bi taxaw muy wut nag ay matériel yu mu def ci kër gi ngir teeraw ko sëriñ bi ñu wax ne daa woo maam Cheikh Ibra Fall ak ay nit boole leen ne leen dem leen ndar ngeen wuti ay lal yu ñu def ci néeg yi ñu wax ne ba ñu demee jënd ko ba nuppi Cheikh Ibra Fall ci sutura sa mu jël ay saako ñu lem lal yi dugal ko ci saako yi sëf ko ci ay giléem bi ñëwee ba ci yoon wi am fu ñu toog di noppalu am na benn waay boo xam ne encens secret la tubaab yi la fa neel booba ba ñuy wax ne sëñ mag sëñ sëñ tubaa ngi waaj a ñëw sëñ tubaa ngi waaj a ñëw ñu ne ah, bu ñëwee nangam kooku kay bu ñëwee li ko tubaab yi def dana leen songu nangam yu demee noonu wax yu rumeur yu bari yu mel noonu am waa ji ñëw fekk leen ñu tëdd mel nañu forbat muy làmbu la eh, bagage yu ñu yor laa lal yi nekk lu mel ni ay tiwo mu làmb ko daal dem këram daal dem kalaame nag ne sëñ Tuubaa ngi ñëw waaye lu doon fetal jënd nañ ko yóbbu Daaru Manaan dañoo bëgg a def attaque contre tubaab bi loolu moo indi wax jooju foofu lañ ne la sosoo bi nga xamee ne sëñ bi ñëw na nag bañ sanc ndax bi nga déggee sëñ bi ñëw dem ndar daa woolu maam isaa jenn ne ko demal wool ma cernu maam isaa jenn ñëw fii fekk fi maam cernu ne ko wiir sëñ bi ndar muy fukki fan ak juróom ca baraxlu wa mooy màggal gi ñuy màggal Daaru Musti mooy bis boobu ba mu demee sëñ bi wax ak moom li muy wax ba nuppi nekkoon ko nag dellu toog maa ngi ñëw maam Cerno ñëw toog fii sëñ bi toog ndar ba ca koor ga mu ñëw wax nañ ne juróomi fan ca koor ga la ñëw sànnoo si fa ba koor ga jeex mu départ si fa jëm si fii fii ngay dégg ñuy wax ne jaar na ba sàngama yëpp fii nga ko taxaw na jóg booba booba Darouane rek ku tax a jóg ndax dara am niwutoon fenn flut fii Darou Salaam gii ba mu ñëwee semaine la fa am ñëw fii léegi nag riméer yooyu nag àgg ba ca tubaab yi ñu di ko toppatoo xam nga tubaab yi ñoom mosuñu nangu attaqué nit teru dañoo ànd ak ànd ak i bokkam mosuñu koo nangu duñ tëb rek ñoom attaki ni ci noonu loolu moo waraloon ba ñu waxee loolu ba ñoom gëm gëm jàpp ne loolu am na ñu woo nag mboolem buur yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi. buur yooyu ndax mën nañ cee xàmmee na xam naa buur siin daal moo ci gën a ràññeeku ndax da ci am ñoo xam ne ñii. seeni jaboot a ngi fi di ay kilifa te boo leen tuddee nit ñi gisee ko neneen te seeni jabooti kilifa la moo tax duñ leen mën a tudd waaye Buur si mi def lu rafet moom mënees na ko tudd waaw loolu moo waral bañ leen wooyee Ndar ne leen sëñ tuubaa dégg na ñëw na léegi dafa bëgg a attaquer guerre léegi nag ni ñuy def mooy dëkk ba mu nekk yéen xam ngeen ko dañoo bëgg nag ñi génni duggee nii ñu duggee nii ñu duggee nii ñu wër ko ndombo waaw wax nañu ne bañ waxee loolu ba pare buur siin moo ne sëriñ boobu ñuy wax day loolu ñu koy waxal amut ndax moom jaamu yàlla rekk ko ñor xam nga comme ñëpp d'accord nañ ci moom mu beddeeku tubaab bi ne ko yow loolu foo ko sukkandiku mu dama koo xam mu ne ko buñ demee nag te fekk fa balak dóom nooy def mu ne kon nañ summi sama mantu maanaam nañ ma folli garanti naa sama mantu bi ma sol ñu na kaa ah, ñu ne waaw kon baax na ñu départ dal dat boo xam ni ci la ñuy départ ne leen dee leen dox guddi bu leen dox bëccëg pour nit ñi leen di xam naan li leen di dox guddi lañ doon dox bu bëccëgee ñu am fu ñu yendal ba guddi ñuy dox di ñëw ñi duggee penku ñi duggee soowu ñi duggee gànnaar ndax dégg nga sëñ Moussa Ka sax di ko wax ca way wa naan bi ñuy ñëw di ñëw daaru ma naan mboolem fii ba ngaabu fii fépp nit ñëpp dañoo daw ndax riir ma sëñ Moussa Ka nga koy wax ca way wa léegi ba ba loola amee nag Buur Siin di wax nañ ni moo daal di ñëw fii ci sëñ bi wax ko kooku ne ko nag am na luñ la duural xam naa dinañ fi ñëw dama bëggoon nag nga may man ndigal ma wut samay nit teg ko fi ndax xam naa seen ko attan nañoo ñëw sànni fi ay fetal ngir duural la moo tax tey may bëgguma samay wax deñ su ma fi tegee samay nit nag ku fi ñëw bëgg a def loolu ñu gis ko sëñ may ko ci ndigal wax nañ ne ay gaayam ñooy wari fos di wër kër gi ba kero ba attaquement bi agsee ba ñu ñëwee wax nañu ne téeméeri soldaar ak juróom fukk yoo xam ne ku ne jox nañ la ñaar téeméeri bar ak juróom fukki espèce ku ne ñu jox la ñaar téeméeri bal ne leen bu ngeen àggee amul dara na tox yi tàkk ndax defoon nañ bu ñëwee ay junni nit lañu fi fekk yoo xam ne ku nekk ngi yor fetal leen xaar ñoom loolu lañ jàppoon ba ñëwee fekkuñ fi daanaka lu mat fukki nit fekk leen ñu toog defuñu dara dal koy yóbbu. waaye ba ñëwee moom comme li ñu waxoon ne ndax dañuy ñëw gëstu ji ba xam ndax amuñ ay lu mel ni xeetu arm yoo xamante ne am na ci kër gi gisuñu ko fi dañoo ñëw rek jubali ci sëriñ bi. ñoo ñëw bi ñu yóbboo sëñ bi wax nañ ne bi ñu yóbboo sëñ bi ba sëñ bi génn kër gi ba pare. la ñu door a wisit kër gi wax nañ ne sëñ bi ba mu demee ba àgg ndar ba nga xamee ne gouverneur waxtaan naa ak moom ba noppi lañ ko wax ak lam gis ci sëñ bi moom jàpp na ne lañ waxoon amut ndax ni mu jise sëñ bi mu yëpp le kër ga bu fa kenn dugg bu leen fa def dara fekk gaa yi wisit nañ ko ba pare ñu ne ko ah kër ga de wisit nañ ko ñu ne ko ci kan ndigalal kan mu ne ndigalal diw moo joxe ndigal ñu wisit kër gi diw moomee wax nañ ne booba lañ ko su folli booba lañ ko folli parce que joxuñ ko ci wër ndigal daa daa waroon a xaar bañ jox ko ci ndigal waaw nee ñu noonu la demee woon ñu jël sëñ bi yóbbu ko gànnaar 1903 macha allah Baye Mbaye xam naa doguñu la sax waaye ku tudd Daaru Manaan tamit mu mel ni sanc bi nekkoon na loo xamante ni ci euh, histoire ak li ñu jot a déglu bam nañu wax ni euh, doon nañu wax ne bi ñu koy sanc mi ngi toll ci ay nangami néeg ndax mën nañoo xam yooyu euh, lan lan mooy lan moo ko waral ak néeg bu ci nekk ñan ñoo ko ñan lañ ko sasoon pour ñu war koo liggéey. ci kër gi de wax nañ ne am na ñu ne juróom-ñett fukki néeg la woon am na ñu ne ëpp na ko. waaye du noonu du dat boo xam ne daal mën nañ la ne néeg la ñi daal nee juróom-ñett fukki néeg la woon ñi ne ëpp na ko waaye ñetti néeg yi boppam yi moom leer na ak fuur bi nga xam ne moo nekk noonu ak jàkka ji nga xam ne moom la nattul woon juróom benn weer yi mu fi defit ci jàkka ji lay jullee ji maam Thierno di ko lekk xamal mooy loo xam ne jàkka ji rek moom moo ko am ci Sénégal senegal ba senegal nag jumaa ju mag ji sax amu ko amu ko jàkka joo xam ne da ci am juróom benn weer di jiite maam Cerno di ko li xaamal Daaru Manaan dong la am amut feneen mën nañu wax ne bi mu ñëwee fii jàpp nañ ne fii la bëggoon def kër bu dëkkukaayam ndax li muy bëgg bëgg bëgg Touba juróom benn weer yi mu am fii nga xam ne fii ak Touba ñaari kilomètre ñetti kilomètre la di mu fa benn yoon ku mu soxla yaa koy fekk si ku ko soxla yaa koy fekk si ndax ku xam sañ Touba ni mel ci Touba am fi juróom-benn wet di demut Touba kon buñ la nee fii la bëggoon a dëkk kenn du ko weddi ndax ji jógewu fi ak sagoom dañ ko fay jëlee macha allah jëlëf ak sagoom dañ ko fee jëlee Mbaye Mbaye mu nekk lu am solo ci yaatal yooyu waaye ndax mën nañoo xam jamono boobu sëriñ bi ci magi murid yi ñu ci gënoon a ràññeeku ndax tudd nga ko mel ni maam Cheikh borom Daaru Mooti tudd tamit ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall ndax xam ñeneen ñoo xam ne ci magi murid yi lañ bokkoon te jamono boobu ñu ngi fi nekkoon ak sëriñ bi maa rek magum murid mu mu fi newoon ci yooyee jamono rek mi ngi ak sëñ Touba fii ndax dañ ko gëjee gis ñu ñëpp dañoo nekkoon ak moom fii daara yi dégg na ko sëñ Moustapha sëñ Moussa Kadi waye ci way wa ay daara la fi taxawal ñiy bind alquran ñiy jàngale ñiy tari ñiy jàng xam-xam ñëpp daara jiñ moo fi newoon bi fi sëñ bi jógee dem dem gànnaar ñoom dañ fee des ndax am na ci ñoo xam ne comme ni ma la ko waxee léegi ba muy metti ndax ñetti at yi sëñ mag bi njëkk am ci géej gi muy ñetteet yu jëkk ya boobu borom dooru sonn na lool gisut kenn mbaa boog ñi mu gis bëriwut wax nañ ne sëñ man dumbe moo doonoon jëwriñi daara ji di jiite dongo yi ci mbay mi yéen a ngi dégg saq yi fi sëñ borom door doon bay fii daaru manaan saq yi yéen a ngi koy dégg ñu di ko wax ci rajo bis bu set nangami fukki sàqi fukki nangami sàqi fukk sàqam fukk mu ne boo ko boo ko bojjee dana ma téeméer bëri koy pepp te nangami sàqi fukk la daan am fii di ko fi bay baatu sàq boobu euh, ndax Baye bay mën nga ñu koo leeral sama classe bi nga xam ne daanaka mën nañ ne dégguñu olof bu baax sàq de lu ñu daan ràbbe am ngeer la mu wër nga lu mel ni niig ñuy fab dugub ji di ko def ci biir boo déggee ñu ne am fukk nag mooy sa tànk bi ngay teg tegaat benn tànk tegaat benn tànk xaya bu lu mu taw taw du tooy loolu mooy sàq waaw moom lañ ko daan moom lañ daan def mag ñi moom lañu daan def léegi la nit ñi xewal ay magasin di ko tabax ak yooyu waaye ba tey boo demee ci àll bi sax ñi dëkk ci dëkk yi ci àll bi am ña am ngeer am yooyu ba tey da nga fa fekk sàq sàq nga fa ba tey ñu ngi koy def jëfandikoo rawatina suñu bokki séréer yi waaw ñu ngi koy jëfandikoo ba léegi. macha allah Baye Mbaye Baye Mbaye Diouf dañoo gis ne Darou Manane boo ko tuddee rek xam dégg ne nga dégg ñuy wax naan Darou Manane ndox maa ngay wala ngaan <laughs> ndax loolu tamit euh, mën nga cee indi euh, tuuti rek. waaw loolu de li ko def mooy Darou Manane bi ko sëñ mag bi sañcee noonu yàlla dafa dogal forage bi njëkk a bënn fii Darou Manane lañ ko bënn. mooy forage bi moom lañ fi njëkk a bënn 1949 50 waaw forage bi moo yoroon Touba yor Mbacke waaw Touba ak ñëpp ci lañ daanaan mooy forage bi ngay sétadoo bi ngay séet nii waaw moo tax moo tax am na dëeru manaan la tudd sax tudd dëeru marnaan waxe wolof moo indi marnaan waaye dëerul manaan la tudd manaan la tudd waaye tudd Daaru Marnaan nit ñaan ndox meeg xéewal yee tax ñu naan Daaru Marnaan rek xam nga wolof moom day gàttal wala mu seet fu gën a leer rek ndax boo nee Daaru Marnaan moom ñëpp daal koy xam ndax booba yooyu forage bi tumuranke na fi lool booba ñu booba ñu baree baree bari sonn nañ ci ndox lool ñoom it sonn ci ndox lañ defoon lool ba forage bi laata ñëw fu ne lañ daan roote fii ba ngaa bokk fu ne dañ fa daan roote ji ndax ndox ñàkk fi lool waaw bi nga xam ne saxaar gi kii ne saxaar gi mag ñëpp xamoon nañ ko bu saxaar gi mosaa ñëw dañ koy dàkk ca gaar ba ndox mu tàng mi nga xaye moom la ñuy wiide nit ñi ñu ko taatan ci seen i paan teg ko fa ba mu xaw a sedd ñu yenn ko indi ko di ko jëfandikoo loolu moom mag ñi nekkoon door maan ñëpp xam ne kon yi sax fàttaliku nañ ko waaw fàttaliku nañ ko waaw ci la forage bi ñëwee nag dajanteeg booba sëñ Fallu moo nekk xalif ñu indi ko fi ci turu sëriñ Fallu seet forage boo déggee ñu naan ndaam ndaam ndaam mag daaru ma naan xam nga tubaab yi bu ñoo saa ñëw dëkk bu ñuy seet rek dañuy lax ban dëkk fi mag ñu ne dëkk sàngam ñu def kayit yi ndaam wër foofu fépp amuñ fu ñu fi gas forage bi ba ci tund wii door tool bàyyi cërno géeyewoon borom kër gee tubaab bi ñëw seet ko ne fii ndox a ngi fi moo xam ne mii du jeex mukk ñu gas ko fi moo tax forage bi ne dóor mu naan waaye trois am la loolu moo ko waral arrondissement bi aussi noonu ba tey ma it noonu la woon ndax ñoom dëkk bi fi mag rek la ñuy jël exemple waaw macha allah Baye Mbaye mu nekk lu am am solo comme liñ leen ko junjee woon sànq rek ci bopp bi yéen a ngi fii ci kër Serigne Touba gi nekk Daaru Marnaan Baye Mbaye Diouf nekk ci mag ñi nga xamante ni bokk ci mag ñi nga xamante ni xam nañ lu bëree bëri euh, ci kër gi tey moom lañu seesti woon waaye tamit lépp rek ci ndigal Serigne Bakke Abdourahmane xalifa Daaru Marnaan lépp rek dimbale ko ci li nga xam ne mooy seen jotaay bi ñu dippee yoonu màggal gi euh, yaatal nañ lu bare bëri ci biir kër gi rawatina histoire mbaaxaan rawatina histoire euh, Buur Siin kuma Ndofène loolu lépp rek ñu yaatal ko waaye tamit jagleel leen ko ci seen jotaay bi ñu dippee yoonu màggal gi xam naa ci kanam tuuti rek dinañ leen gën a indil ay leeral ci yenn yi nga xamante ni mi ngi ci biir kër gi dinañ leen ko yaatalal incha allah ci kanam tuuti mbokk yi jërë ngeen jëf. أعطيتني ما القلب أنسى كلما مدى من الدوء معوت السلما كافأني من مهلوك منات بمال خيساق كل من جاء xam ngeen Daaru Manaan bi ñu ko sañcee 1900 ñu ne fi sëñ mag bi nekk gànnaar ba 1907 mu jógee fa ñëw ci yéen Jolof nekk ci yéen Jolof ba 1912 tubaab yi jëlee ko fa yóbbu ko njaareem ba mu demee njaareem la yebal sëñ amsatu jaxate mu yot maam cerno ab leetar ca mbàkke kajoor boo waa kër gaa ngi fii waaye dafa am seen baay boo xam ne moo nekkoon mbàkke kajoor di ko wax sëñ Ibra ba mu demee ba mën a tut lool sëñ bu mag bi yónni borom dër ne ko demal taxaw ko man maa ko war na taxaw te néewuma fi kon demal taxaw ji ko boroom dër nekk fa di ko taxaw boobu njaboot gaa ngi fii bi sëñ mag bi ñëwee njaareem nag la jox sëñ am satu jaxate ab leetar ne ko demal fekk maam cernu mbàkke kajoor nee ko na aw fas jublu penku tàmbulee bàqara fas wi bu mu daw nay temp rek fu mu agsee ci minal jinnati wan naas nga xam ne kaamil bi jeex na foofaay dëkk ba na fa wàcc sanc ko tudde ko daaru muuti lu ko fa fekku dama ko amut dañu loola ko suñ tubaa waxoon ba boroom dëru defee loolu di ñëw di ñëw ba dëru musti gii tey fa la kaamil ba jeexee mu wàcc sanc ko ba mu ko sañcee nag la njaboot gi jóge fii dem Darou Mouhty fii Gent Gent ba 1943 borom Daaru dem bi borom Daaru demee doomam ju ñu wax sëñ Abdourahmane bàyyi sëñ Mbàkke daba saar mi lañ jox ndigal ne ko demal dekkali Daaru Manaan ñëw dekkali ko ci ndigalal sëñ Moodu Moustapha booba sëñ Moodu Moustapha mooy sëñ Touba. wax nañ ne ba mu ñëwee dana ko demal sañci ko te ku la fa fekk di la wax dara nga ñëw wax ma ko ma wax la ma wax la wax ko la ko la fa indi woon baayam xam nga boobu nit ñi dañoo bëgg suuf boo dëkkee ci dëkk rek bu ñu nee nàngam nga ne am naa fi nàngam looloo taxoon ma wax ko loolu sëñ Abdourahmane moom mu ñëw sañcaat ko yeesal ko 1944 ba 59 60 sëñ lu ñëw yeesal si kër sëñ Tuubaa gii néeg bii mu jox ko sëñ Moodu bu si jag ne ko tabax ko jox néeg bee sëñ Mbàkke Madina ne ko tabax ko keroog ba ñëwee ak guddi lañ fi ñëw indi ay camion wàcce fi ay seng yu du jeex mu sant ko sëñ Moodu Xabaan moo senge kër gi lépp cent mètres carrés yi bayti gii mu def ko néegum ñax boo xam ne juróom benni koñ la woon ñu def ko dénki bois rouge sant xadde ko ñax sàkket ko xat loolu sëñ Modou ko defoon sëñ Fallu bu masaa ñëw ci kër gi fii lay ne ci néeg bi lay ne daana fi ñëw alxemes daana fi ñëw gaaw dimanche altine talaata alarba ba alxemes mu dem Touba daana ko def fii ci kër gi ku ne fekk na ko fii ربي ولم يكن له كفوا أحد ناجاني الله مكرم الصمد تناجيا بك فاني الكمد واجعلي أقما فالكرم fekkiwuma ko waaye wax nañ ko ma dégg kon mooy néeg bii kere bi sëñ Fallu sëncee kër gi ba nuppiit daawoo sëñ Abdourahmane ba mu ñëw mu yëkkati ceeb ji teg ko ci loxoom muy sëñ Abdourahmane waaye sëñ Mbàkke dama saar mii ne ko kër gaangu sa kër saa su fi sëñ sëñ euh, sëñ Fallu Musaa ñëw kër gi sëñ Abdourahmane mi ngi ko njëkk ko jox Baye Makhtar Diop moo ko yore woon saa su fi sëñ Fallu ñëwee mu nekk feek moom bu sëñ Fallu demee saa su ñëwee fi lay nekk ba julli gee door dem këram boobu yàlla dogal na amagul kër sunu kër la newoon foofu Baye Matar moom sunu kër la newoon loolu daal mooy histoire néeg bi ñuy wax bayti bañ ko sañceet néegu ñax la woon suñ moodu xàbbaan moo ko defoon muy néeg boo xam ne juróom benni koñ la ñu def ko gayete bois rouge xadde ko ñax jiital tappi ca biir xade ko ñax feteñe ko xat feteñ per mu per yu rafet waaw moom lañ ko defoon léegi nag sëñ Modou Bousso Dieng moo ko tabax nii waaye loolu la woon néeg bi ngeen gis nu taxaw fi wetam mooy néeg bi nga xam ne keroog ba sëñ Fallu ñëwee di yeesal si kër gi dafa wax ne fii dey fi la sëñ Tuubaa daan bindee ne gas leen ñu gas ba jot perong bi gis ci ay ay wert wert ak xong xong mu ne encre bi mu doon bindee mi ngi nii dañ ko fàkkoon ba mu set ñu def ci ndox fu ne na nit ñi daan jóge di duy ndox bi di yóbbu seen kër fu ne ci àdduna bi daayira bu masaa ñëw da ñëw siyaare si ko sëñ Fallu jox ko sëñ Mbàkke Madina moo ko tabaxoon da koo tabaxoon moo sëñ Modou Cissé ñaari réew yi kenn benn bi ñoo bokkoon benn plan mu tabax ko tiwil lañ ko xaddewoon booba ginnaaw bi la ko sëñ Modou Cissé def ni terrasse waaye tiwil la njëkke woon sëñ Mbàkke Madina moo defaroon bii sëñ Modou Cissé defar bee loolu mooy histoire néeg bii ba sëñ Fallu néeg fii la sëñ Tuubaa daan bindee ne gas leen ñu gas génne ay ay xeer ak i móol xe eh, móoli tiwel yu yàgg bañ gasee ba ca terong balaa la wax ne la daaju xonq ja ak daaju bulo ja daane ci perong bi sëñ lu ñëw tiim ko ne daa jaa ngi nii ñu fàkk ko ba mu set def ci ndox fu nit fu ne nit ñi jóge na ci ci àdduna bi ñëw fii di ci duy ci ndox bi ñii di ci xalangu waaw muy néeg bii sëñ Mbàkke Madina la ko sëñ Fallu joxoon moo ko yeesaloon ginnaaw bi la ko sëñ Modou bu si jëng def nii li aadadin mufida yaa ya xayru musalli salaam mooy mooy jumaay Daarul Manaan mooy jàkka ji ma leen bi sëñ mag bi sanc loo borom daaru moxti mooy jàkk ji nga xam ni sëñ Touba jiite na fi juróom benn weer borom daaru di ko leqaamal ma waxoon ne leen mooy jàkk joo xam ni lim am benn jàkk amu ko sëñ Modou Mbacke mi nga xam ne moo wutu woon sëñ Abdourahmane moo ko tabax nii jumaa waaye xam ngeen bu sëñ mag bi nekk xaw dañ koo làkkoon geer xaw ma dañ koo samponi bant waaye xam naa ndax dégg naa ñu ne kërug Daaru Xuddoos gi bi ko sëñ Tuubaay door a sëñc dañ koo làkkoon làkkab ngeer bu gudd boo xam ne daanaka mat na ñetti mètre ci kaw ginnaaw yooyu jamono lay tollool nag xëy na làkk la woon wala muy sàkket waaye gis nga tey di ko sëñ Modou Mbàkke def moo ko tabax jumaan yi mooy jàkka ji ngeen di jàkkaarlool nii mooy jumaay Daarul Manaan